dinaa wax ci ñaari mbir bi ci njëkk mooy lu ñeel scandale yi nga xam ne moo am foofu fële ca poor autonome bu dakaar te ñu jël ay tuumaaki sos ak i naraki fen teg ko ci kaw jëmm ji di Waly Diouf Bodiang di directeur bu bees ba ma indi ci ay leeral beneen bi ci topp dinaa wax ci lu ñeel mbirum élection présidentielle yii nu génn résultat yi nga xam ne ay résultat fabriqué la te waa E-Media daal di woon koy prévoir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 alors que ñoom dañ ci tuut parce que tamit non seulement vous êtes mal placé ñiy wax ñëpp am ñu place pour di wax ci lu ñeel mbirum politique parce que démb ak bëgg dem fi la ñu fekk jërumay tudd benn tur nag mais gis nañ ñu bari def seen i sorti di naqarlu dàq gi nga xam ne Waly Diouf Bodiang dàq na ko toll ci 700 personnes yoo xam ne ay emploi fictif lañu woon ci gàttal 700 personnes yooyu bu ngeen bëggee dégg-dégg la ci doon liggéey ci biir port autonome bu Dakar lépp lépp matul 50 personnes li ci des lépp mosuñoo xam ne port mësuñoo xam nu port mel la leen dogal la leen dugal biir port autonome bu Dakar mooy ay raison politique Macky Sall moo leen jëloon pour politiquement dugal leen port te Macky Sall bi muy recruter ñooñu am na 400 personnes yoo xam ne nee ñu ñoo bokk même village waxuma la waxuma la ville waxuma village village bu ndaw boo xam ne nee ñu 700 400 personnes yi fa la ñu dëkk ñoo bokk même sant ñoo bokk même biir port li gën a dee amoon nañ fa ay immatricule carte d'identité yoo xam ne ñoo bokk ay numéro carte d'identité yoo xam ne sax ñoo ko bokkule dëkk bokk même village nga xam ne ay tappalee ki caaxaane ki complot moo leen dugal biir port autonome bu Dakar kii di Waly bu Bodiang rek bi mu ñëwee am na benn audit boo xam ne dañ ko entamé moom demandé wu ko te itam waxul kenn nga def audit ñoom ñoo def seen audit jébbal ko rapport audit bi mu xool xam ne lii ay scandale yu jëgg dayoo la mu limosé lu dàq lu toll ci sept et quelques personnes yoo xam ne vous êtes des emplois fictifs ay emplois fictifs la ñu woon yoo xam ne tappaleeg caaxaan ak complot ak bañu réew mi Macky Sall moo leen dugaloon biir pour autonome bu Dakar nit ñi nag bëgg jël toor bi xëpp ko Waly Diouf Bodiang ne Waly Diouf Bodiang kat li muy def nii dictature la li muy def nii jaay doole la li muy def nii xuppalaate la te loolu du yoon ngeen dégg ci ay nit yoo xam ne ñu ngi gën di ubbi seen làmmiñ di wax te lañ wax xamuñ ci dara li ñuy wax lépp lépp lépp lépp ay fen la gis nga manipulation bii ñu nekkee dañoo war a xam ne manipulation bu fekkoon jëmm la tër nañ ko ren di keroog le 2 avril fii kenn mënatu fee manipuler kenn mënatu fee sos kenn mënu fee fen ba convaincre benn sénégalais parce que man damay wax ne yéen bu fekkoon ay nit ngeen wala ngeen ay nekk ay nit yu xalaat di ngeen xam ne ñii bu fekkoon manipilation wala diabolisation man na ci ñoom dara waxuma la nekk président de la république waaye du ñu génn kaso du ñu génn kaso kon da ngeen a manipuler diaboliser sosa fen ak vilipande lu ngeen xam def ngeen ko mënu leen ci ñi dara xeeru ngor lañ wow koŋŋ lañ def xam ngeen xeeru ngor boo dalee ci kawam yaa koy yëg bu dalee ci kaw yaa koy bu ngeen yaboo ngeen nekk ay nit te ub seen gémmiñ lem seen geen bam ron ngeen toog te xam ne ñii yàlla leen fi teg dogalu bi yàlla nag boo bëggee noppalu da ngay def li yàlla dangay nangu li yàlla dogal mu noppal la soo ko bañee rek mu sonal la Waly Diouf bu jaam bu ko am bu am kenn lu am lu koy rapproché parce que rek olof ñaari wax ne ab tegale bu jubee te daanuwul ba jiitoo jub ab tegale saa bu jubee rek te daanuwul saa bu guddee te daanuwul ba jiitoo jub te gis ku nan ko dawal te jàppoo ci yadwa bëggu loolu dul mu daanu tey jii nii lan lan ngeen bëgg wala ju buñaa bàyyi fa 700 personnes yi nga xam ne ay sàcc ngi ci ay agresse lu nee ngi ci nit ñoo xam ne li gën a dee am na ñoo xam ne sax newul Sénégal te ñu ngi fayeeku am na ñoo xam ne nekkul Sénégal te ñu ngi fayeeku Macky Sall moo jël 400 personnes ci benn village prévoir leen ci benn port bu ñuy wax port nu mu tuddati portu bees bi ñuy tabax dama koy fàtte portu Ndayane port boobu noonu la leen prévoir oon mais le temps port bi pare Macky Sall defal na leen ay contrat biir port autonome bu Dakar ñu fay liggéey ndax raison politique ak affaire ne da ko bandum yooyu moo tax yooyu moo yaatu ci réew mi te secteur boo dem Macky Sall def na ko fa tey jii demee kudd def na ko fa bërki dee moo Ndiaye dégg ngeen li xew fii ci LONASE ñu defal ay nit ay convention yoo xam ne ay centaine de millions la ñuy fayeeku chaque année te loolu xajoon na ci réew bi ci réew mu pauvre bañ ne bokk na ci ñaar fukki réew ak juróom yi gën a pauvre ci àdduna bi Macky def lii kon xam ngeen ne kii bëggul réew mi dama ne gis ngeen bu fekkoon ne yàgg na ci réew mi wala mu toogaat ci réew mi waxuma la Sénégal am na pétrole waxuma la am na gaz waxuma la am na zircon waxuma la am na phosphate waxuma la am na leneen ak leneen ay fer ak yu nekk waaye bu yàlla doon def Sénégal di taw or ak jama ak wurus ak ngalam lépp loo xam ne mën naa yóbbu am réew ca kaw billaahi du tax Sénégal avancé parce que mbaam àll lañ yoroon moo xam ne golo li muy yàq ci tool Macky Sall ko raw cim réew billaahi réew mi du mas a avancé du mas a avancé parce que complot ak tappale caaxaan la yore woon réew mi Macky Sall demoon na ba képp koo xam ne maanaam yaa gi taxaw di ko tagg pare na pour jox la ay salaire gis nañ fii nit ku daan taxaw di saaga ndeyu Macky Sall di saaga baayu Macky Sall di saaga jabaru Macky Sall di saaga doomi Macky Sall di saaga Macky Sall ci boppam pendant des mois di ko xas dul bon lu nekk mu di ko wax di tudd ay awray waay juróom ngeen baal ma ci kàddu wax ju bon ju nekk mu wax ko Macky Sall finalement fan la mu jóg Macky ko recevoir fëri ca Paris fële ca pare muy Kaliphone Sall akolaat ko ànd moom añ moom def fi ay yëf xoolal googu ñàkk dignité ak googu ñàkk bopp ndax lan kii kat mi ngi lay défendre kii bàyyi na laa saaga léegi mi ngi saaga sa adversaire muy Ousmane Sonko da xool kii ku ñàkk dignité kii ku ñàkk lii ñàkk la gën day sax moom moom yaakaar naa war fa àgg nit ki warta mën a ñàkk la man nit nit yuruma dara melu ma ne waaye ballaahi lancim bu ma nit doon saaga nday pendant des mois def ma ko dara bis bu ma ko gisee moom ñaar xamal dañuy séparé moom moom dañuy se balaa daraa xew dañuy séparé ba pare bu ñuy jubale waa dañu soog ñoo jubal loolu moom bañu ma ko loolu moom bañu ma ko waaye maanaam yow nga gis nit mel ni comme si de rien n'était mel ni dara musul xew seen diggante te du benn yoon gis nañ fi benn jigéen bu ñuy wax awus kiti te ñëpp nag gis nga même ñaaxal maman même ñaaxal sax Kaliphone boobu da am salaire 5 millions la ko jot Kaliphone Sall te lan ko may saaga président de la saaga Ousmane Sonko yaa ngi dégg nga gis ndaw ñuy wax awus kiti nekk caga boo xam ne ma nga foofu fële ca ca ca Dubaay liggéeyut xëyut gontul góor gu mu àndal tey su bu mu àndal keneen daan saaga Macky Sall di ko saaga di ko saaga ba yàgg bu bàyyi koo saaga léegi muy saaga Ousmane ko gis nañ Macky Sall recevoir ko gis nañ fi ay centaine de personnes yoo xam ne loolu rek moo tax Macky Sall jox leen salaire ngeen gis bërki barki moo Ndiaye lii xew ci LONASE ay nit yoo xam ne ni salaire bu weex tal lañ leen fay chaque année loolu di coûter Sénégal ay millions yu bari par an. Macky Sall doon ko jox ndax lan dañuy saaga Ousmane Sonko ndax lan dañuy défendre Macky Sall au nom de quoi pendant ce temps étudiants yaa ngi fi jàng ba pare liggéey jàng ba pare seenum njàng mënuñoo am liggéey étudiants yi def ay cinq ay ay vingt ans université mu mënuñu génn yor seen diplôme mënuñoo liggéey pour lan loolu est-ce que lii mooy tax am réew ñoŋ dem ci kanam étudiant bu dem Canada jàng ba ñëw mun a am liggéey nit def ci université bi cinq ans dix ans vingt ans mënta am liggéey ngay jël ay doomi xaram yoo xam astafurlah ngay jël ay nit yoo xam ne tekkiwuñu dara saaga ak xas ak yàq gor mooy seen métier nga leen di fay salaire loolu mooy lan kon ngeen war a xam ne Waly Diouf Bougniang li mu def maanaam illa a parfaitement raison mu def li mu def parce que nag ay wëyoo ko bukki kenn du leen boole ci loo xam ne nii maanaam alalu askan wala te ñee ñoo raw ay bukki ñoo ay njëréel ci tool ku leen bàyyi woon biir port dana gën a yàqu dana gën a bon te su boobaa résultat bi kat kenn dong lañ koy laaj mooy wàllu jub bu ñaaw mi nga xam ne mooy directeur bi kon moo war a teel a jël ay responsabilité am te jël na ko bu ci kenn ubbi sa gémmiñ di wax bu leen fontoo Sénégal yi bàyyi leen seen naafeq gi beneen bi ci topp dinaa wax ci ku ñeel jëmm ji nga xam ne man su fekkoon maay justice su fekkoon man juge muy euh, ki nga xam ne maanaam mooy Mamadou Ibra kan problème bi nga xam ne am na ko ak jëmm ji ñuy wax euh, nu mu tuddati Abdoulaye Sylla man Mamadou Ibra Kane ci kaso bi laa ñaf dama koy ñaf ci kaso bi ndax xaalis bi ñu koy jiñ 4 milliards yi disparaître ci biir euh, boîte ba moom moo ko sàcc ndax yaakaarama tas mu xam ne seen rajo bii ci fayit la jëm mu ne xaarama buub milliards yi daw bu ëllëgee ma xool ci leneen lu ma jàpp ndax yàgg-yàgg ci torox tàngi laa jëm wallahi moo ko sàcc man fekko may justice àtte naa ko tëj naa ko ndax xamul problème bi Mamadou Ibra Kane boobu noonu xam ngeen ne keroog jouru élection yi ci ngoon résultat yi nga xam ne ñoom dañ ko fabriqué di fen naan Macky Sall naan naan Amadou Ba dafa gagné fële nga xam ne mooy ci bërëb sàngam am na fa tolloog quatre cent quatre-vingt-dix mille voix kii di Ba am na fa un voix bu fekkee bërëb sàngam Amadou Ba am na fa cinquante huit mille quatre-vingt quatre cent quatre-vingt nangam milliards voix Amadou Ba am na fa euh, zéro virgule quatre-vingt di fenn nga xam ne moom bi mu koy wax sax ñi mu war a jàkkaarloog Sénégal yi les jeux dans le pour di wax parce que xam na ne day fenn dafa sëgg ci kay kayitam di wax naan Amadou Ba gañe na fii nanga nga xam ne tey bis bu ñu yàlla nattu woon bis bu ñu yàlla nattu woon ba nga xam ne Macky Sall déglu na ko wala Amadou Ba déglu na ko su boobaa fa la ñuy doxee siguñu réew mi tàkk ndax seen ay propre intérêt mais est que ñii ay nit lañ da ngeen di seet est-ce que ñii ay doomi ay doomi aadama lañ seeni propre intérêt tax ñu bëggoon sacrifier askanu Sénégal ndax xam ngeen ne keroog bu fekkoon ne maanaam tey Amadou Ba mi ngi leen doon déglu wala Macky Sall jëlut Macky Sall nag yàllaa ñu dimbili mais bu fekkoon ne tey teelu la jël ay parce que Macky Sall moom ba mu defee ba mu defee ba mu defee loolu ñuy wax loi d'amnistie ci la jënd glace waaye bu fekkoon ne jëndul glace wallaahi lancim élection yi kenn mënut a tey jox ko Amadou Ba ne moo gagné mais Macky Sall dafa teel a dégager ay responsabilités parce que xam na ne Sénégal gépp xam nañ ne kii di Diomaye Faye gagné na waaye lenn ci presse bi di génne ay faux résultats yoo xam ne dara du ci dëgg ay fen la ndax sàmm seen ay propre intérêt xam nañ ne gouvernement bi bis bu daanoo ñoom ñu yàqu moo tax ngeen gis ku mel ne waa ITV di fen ak sos wax wax yoo xam ne wóor na leen wóor yàlla dañuy fen ñu ne ay Amadou Ba gañe ne fii Amadou Ba gañe ne faa lépp di ay fen nga xam ne tey bis bu Macky Sall jëltoon ay responsabilité am moom li tax ñu naan dafa tayle Amadou Ba xam na ko moom daa def loolu ñuy wax sama bopp ma la gënal du bañ naa la mais tey jii bu ne woon kut kaa kut damay fexe Amadou Ba gañe presse bi jàppale ko ci kenn mënut a tee ñu sàcc élection yi comme niñ ko daan defee parce que Macky Sall mos gañe élection lu dul 2012 mos a gañe élection